chant ma faal yi xam nga moi j'aime bien nag ñi ngi génn dañuy génnee gars yi ñun mais il faut que gars ñu leen di génnee parce que yaa yaa un boulot yaa un boulot boo xam ne taxawal rek ma faal yi dafa am liggéey bu am solo boo xam ne tey buñ ñu ko jël si internet bi dafa am ci ñu muy jaar am ñoo xam ne euh, du ñu bëri wuñu wax mais lu bare bari tey def nañ ko ba affaire yi tey affaire yi nu mu demee Chon nuyu naa la. bon Bamba fay naa la di kontaan trop ci Feeling Dakar bio bi voici Dakar Dakar Show ma faa di suma confrère et dañuy kontaan trop parce que liggéey bi tey bu sottee grâce à la presse en ligne. Mm-hmm. tey. fecc bu neexee yaay jaa jàpp sa mbagg ya ma nu mhm. waaw fecc mu liir bu neexee yaay jaa jàpp ci mbagg ya mhm. kon tey a respecté presse a dooleel presse parce que sans nous mhm. du saf xorom te ceeb ba du safee nag ah xam nga ko li ma wax sànq rek c'est des hommes yoo xam ne ah, tey bu ñuy wax bu ñuy wax people tey Chon defe naa ne bokk na si ñuy tudd alors tey yéen a ngi def liggéey bu am solo ci ci ci ci ci ci euh, musique sénégalaise ci culture bi ci art bi mais respect bi dafa manqué comme ni nga ko waxee au niveau des de l' administration te loolu defe naa ne lu am solo loo xam ne war nañ ci mën a waxtaan aussi ah d' accord. donc xam naa ne loolu tamit bëggoon naa nga wax ma ci tuuti rek parce que dañuy gis ne lu ci mel ni ambassades yi tey journalistes yi pas ñi ko moom mais dañuy bëgg a dugal ay nit seen journalistes yi des fois ñu leen di bloqué et ça c'est problème boo xam ne on doit war nañ ci wax war nañ ko xeex waaw ah. bon loolu yëpp euh, mooy li wax rek foog ñun ñu jël suñu matukaay jël si suñu matukaay bu baax état bi ci ñu jàppale état bi gën a jàppale président tu vois état bi tam am na si part de responsabilité tu vois nit ki yóbbu ay documents am compte en bancaire am attestation ordre tout kon gisuma luy waral li bañ leen a accorder visa kon ñun suñu biir dina gën a toog yaakaar waxtaanaat ba déggoo. état bi gën ñu jàppale ci loolu. mais alors Viviane bi tey noo ko gisee ban impression nga. Viviane bi euh, Bamba gis nga bi moom euh, xam nga ni day dox parce que salle bi fekk seen affaire fekk Sénégalais la tey moo demee nag drapeau bi dañ koy jëlaat yóbbuwaat ko Sénégal kon li may waxaat la ñëpp ñëw bu duggee léegi la ñëpp ñëw ñu ñëw jàppale Viviane dooleel ko parce que ñu la waaw la c'est la fête rencontre la. kaf fooree la kon ndam bi dañ